Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Niass dofu maam Khalifa Niass le marabout du peuple numéro téléphone am de 75 644 77 77 wala 78 362 44 44 muy nekkee fi nga xam ne moo di Dakar ba Kaolack moo leen di may seen émission préférée. Titi yee jël na ab siis teg ca soxu bébé moom mii di Titi ba ñu ko laajee ci diggam ak soxu bébé nee na soxu bébé sama doom la sama rakk la sama lépp la li fi ma teg yeneen artistes yi nga xam ne ay moroomam lañ foofee laa ko teg moom soxu bébé waaye nag man bi ñu koy takk yëguma ko tiinuma ko moom mi woow ma wax ma ko kenn waxuma ko te man maa ngi jàkkaarloog moom nii ne ko soxu bébé yow laay waxal musoo yëkkati sa wax ma ni ma dañu may marié soo ma ko waxoon su ma mënee ñëw ñëw su ma mënul ñëw itam dinaa yebal samay nit daal di teew te itamit nag titi yamul le na soxu bébé ko man maay la ma sa ak li nga may bëgg yëpp man mii di titi maa yëkkati sama téléphone woo la te a woo woo naa la jotuma la ki ko soxu bébé soxla nañu ko titi moo ko bëgg woo waxtaan ak moom boobee bi nga ma jot matin am nga lu la bett loolu beneen ñaareelu góor gi nga xam ne moom la ko woo lépp la ko titi wax xamal ko ne ko ñaar yoon yooyee ma la dégganteeg yow man mii di titi maa yëkkati sama téléphone woole yeneen yi ci des yëpp nag sama seen saa ci daan yëpp daaw ma xam ne sax yow yaay soxu bébé Fatick nga ma daan fekk saa ma mësaa na ñëw ci benn concert da ñëw bàyyi la nga yéeg soo waaye ba noppi ma ne xale boobee di dem na ma ko joxal way mu ne ma ba bi nga koy wax jamono jooju le ci sama poos waaye kottu laa yere woon mu ne ko joxal ma ko soxu bébé te bu ci teg baat loolee lépp ma seq ko ak moom ci teranga soo ñëwee sama kër damay déglu ñëpp ci artistes yi bépp xale boo xam ne yaa ngi ci musique bi di way jamono ji di way lu neex te jaar ci yoon man titi dama lay déglu aw mu lu may tiré ci lenn nag waaye soxu bébé nit la koo xam ne man maay déggante ma ak moom man def ay effort waaye moom ba léegi deful ay effort jëmale ci man mariage yëguma ko lu bare bare itam defu ko jëme ko ci man man maay def jëme ci moom waaye moom jëful jëme ci man képp ku jëfoon mbaa nga wax jëme ci mbaaco ngir jàppale ko ci jafe-jafe ak jur jàng gi mu génn moom mi di mbaaco njaay mu ngi lay wax jërëjëf mbaaco njaay ci réseau social bi ci la daal di aw photom daal dina jërëjëf yéen ñi nga a ma doon encouragé génn ndaxte àdduna noonu lay doxee àdduna nag yenn saay da ngay nekk ci jamono joo xam ne bànneex dong ngay dund nga am jamono joo xam ne ci tristesse ci ngay nekk waaye nag su boobaa soo amee ay nit ñoo xam ne ñu ngi ci sa ginnaaw di la dëgëral doo am lenn lu la metti tax na moom Mbathio Ndiaye mu yëkkati ay kàddoom naan leen jërëjëf jërëjëf sant naa ñëpp gërëm naa leen Sanex gërëm neex wax na xalaatam ci li nga xam ne moom moo di série yu Sénégal yi a ñi koy joué moom mi di Sanex nee koo gis muy joué fii série ñi ci bari duñu ay acteur ñoom ñëpp ko dañoo def yëfi yëfi cinéma fekk na sax jaaruñu li fi am Sénégal lépp théâtre la théâtre nag mooy li nga xam soo ko jàngul dëggantaan nangoo nekk comédien dëggantaan tarbi ko daal di koy mbappat doo a na ci ñoo xam ne jamono jile soo leen nee ñun ay comédien lañ dañuy lànk na ñun duñu ay comédien ay mannequin lañu ay vrai acteur lañu fekk na yow jaaruñu fa acteur ya jaar xandawuñu fa laalewuñu fa taqewuñu fa te itam xeeñuñu fa moom mi di saane nee la ma waxoon ñu ma ciy ngawti ngawtee loolee laay dellu waxaat théâtre bi fii ni ci Sénégal ni ñu ko jàppe moom moo di ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kaw war ko structurer mën koo protéger ba ki nga xam ne képp ku ci dugg da ngay mën a xam dañuy mën a xam yow yaay kan ak fan nga foo bawoo fan nga sosoo ban expérience nga ci am waaye Sàmbata Njaay gu rek daal di ciy dugg xat nga la xat nga lay na nit ñi doon ay théâtre kat nekk ay acteur ba noppi itam jàppe seen bopp ay ponkal te doonuñu ko loolu lépp li ko waral moom moo dina ñi nekk ci kaw ñoo fooye théâtre bi ñoom ñoo nekk ci kaw ba noppi lépp lu génne la culture ñu daal di koy baxan ci seeni po doxoog moom ko jàppe ñoom nag jàppewuñu yëf yi dañ koy foowe man nag sama wax ja démb mooy sama waxi tey samay wax jalamuus la te saa boo ko sulee daa am la fa fekk moom Idy Sané yëkkati na ay dëggam jagleel ko ñi nga xam ne ñoo nekk ci milieu cinéma bi milieu cinématographique bi nee dañu ko yàq ba mu yàqu yaxee théâtre bi nag waxi noppi Sanex yàq na leen musiba ak mbelengaan Balla Gaye numéro 2 am na nouvelle bu neex bu ñu ko annoncé waa CNG de lutte delloo nañ ko lenn ci koppar ya daggoon ci moom ci combat bi doxam diggam ak Bombardier jëlaatee aw dogal yëkkati verdict jox ko Bombardier xamal ko ni ko yaa daan Balla Gaye numéro 2 ci jëll bu set wecc ci jëll bi nga xam ne moom la ko daanoon te arbitre bi bu daal di koy ba da doon anniversaire bare bare di ko waree joyeux anniversaire ñoom ñëpp ñu war ko def seen Sanu Ndiiraan naan yàlla na nga yàgg lekk ceeb yow di yow mii di bira nit ku baax nga ku di ko jëlal ay kàddu di ko xamal ne ko nag nit ku baax nga nit ku yiw nga nit ku neex a liggéeyal nga nit ku dëggu nga nit ku fonk njaboot nga nit nga koo xam ne dangaa jox nit ñi cër ñëpp moo tax nag ñu ngi lay ñaanal yàlla na nga yàgg lool te ànd a wér moom di Kouthia bégal na Birane Ndour ba noppi itam ñaanal ko wayal ko feccal ko ba noppi itam reetaan loo ko ma dem ca Paris fekki fa baptam bi nga xam ne ma nga fay xefa jeng bi nga xam ne moo nekkoon borom kër ci Birane Ndour daal dinay am doom ju góor tuddee ko Cheikh Ahmadou Bamba ci gudd moom it di Tafa Jeng da doon jooy bu mënatul téye boppam jooy bay sir lay def sëgg di jooy moom it di Tafa ba ñu ko dékkee micro di li ne ne damaa am bégte boo xam ne dafa yaatu loolu ci sama biir xol loolu la mooy li tax damaa dem ba fees dell mënatuma koo muñ ma daal di tàmbale nag di tuur di tuur ay xéewal moom it di Tafa nee na sant naa Serigne Touba bu baax a baax lii nag sant Serigne Touba mënu koo weesu am na doom tuddee ko Cheikh Ahmadou Bamba moom mi di Cheikh Ahmadou Bamba Dieng mu daw ñu ngi koy ñaanal jàmm ak tawféex gu wér a wér yàlla na sut aw fan ay baayam bu noppi itam nduru aw turandoom donn ko ci ay jikko ni ma ko baaxoo defee ci samay kàddu mbaas maa ngi ci suñum réew nañu sàlloo mesure barrière yi takk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 Dakar, notre plateforme d'information.